di leen balu xàq bu baax it te di leen balaq di sant yàlla bu baax nag di julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa waaye di delsiwaat ngir waxtaan ak waa réew mi waxtaan wu gàtt lay doon woo xam ne tomb bu jëkk bi mi ngi jëm ci diggante nit ñi ci boppam ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi muy police wala gendarmerie wala armée di sunu ay bokk ñii doon sunu ay wayjur ñii doon sunuy mag ñii doon sunuy rakk ñii doon sunuy jarbaat euh, ñu di liggéey ci réew moo xam ne bu fekkoon ne mbir yépp dafa tege ciw yoon wala li ci ëpp bokk fii la seen liggéey di gën a jàppandee ndax ku fi nekk ku ne ci ñoom nit ku gëm diine nga te lii ñuy wax armée républicain dëgg la ci réewu tubaab yi la jóge waaye am na ci yu baax yoo xam ne itam mat naa roy ci tubaab yi am na yu baax yoo xam ne mat naa roy ci fi diine jóge ci nun muy ci réewu arab yi waaye itam am nañu yu baax yoo xam ne fii ci sunum réew fi la sax kon yett yooyu bu ci ne am na luñ ci war di jël di ko ci jariñoo la indi wax ji mooy interpellation Cheikh Niass bii nga xam ni ci la ñàkkee ba kanam may wax nag ni ñu bari léeg-léeg mbir mu demee noonu bu amee dañuy wax ne yoon def liggéeyam diw moo rey diwi nangam ak nangam euh, te li ko jiitu mooy sunu diggante ak ñoom saa su ne dafay lëj dafay mel ni nit ki bu xesee ba sol tenue civil bi sax leeg léeg moo koy gën a respecté tenue ndax dina ko jox cër boo xam ne ak worma euh, léeg-léeg day mel ni day jural doomu aadama bi euh, nguur gu mu yëg ci boppam gu jéggi dayoo te loolu lu mat a wattandiku la ndax civil bi ni muy wormaalee tenue bi noonu la ko policier bi war a wormaalee ndax moom lañu defal formation ba moom ci boppam mu sol tenue bi kon moo gën a xam valeuru tenue bi moo gën a xam worma ji ñu ko war a jox moo gën a xamit li ko tenue bi may ak li mu ko xañ bakkanu doomu aadama lu ma mën a sababoo loo xam ne lu sa loxo takk na ca ba mu jóge fii atab lislaam moom daf cee leer kooku day dee dem safara Euh, li ca toppit mooy bu fekkee kilifa gi nga xam ne moo moo yilif commissariat ba dañ ko réaffecté feneen wala ñu ñu changé postam ki nga xam ne itam moo defoon interpellation bi ñu réerantal ko ci biir policier bi ba doo xam kan la loolu lépp xëy na corps de bi muy liggéey dañ koy def ngir protéger ko mën nañ jàpp na c'est normal waaye est-ce que nit ku mën a dox sa diggante ak sa conscience am na est-ce que am na benn nit boo xam ne mën naa mooy wa kulluhumu aatihi yawmal qiyaamati fardan am na kon yooyu mat naa bàyyi xel nit ki conscience am moo koy wax saa su ne ne ko est-ce que boo defee woon nii lii xew lépp dina xew est-ce que boo maslaa woon est-ce que kii boo ko ne woon droiteel nii dem jëli say kayit wala damay immobiliser oto bi yow foo xam jëm fa loolu lépp mënoon naa am te bakkan du rot ndax jabet a ko rey wala covid a ko rey lu mën a xew rekk am na ci nit ñi doxalin bu jaarul yoon loolu nag mat naa deltu ginnaaw bu baax te dafa bari c'est pas le premier cas cas yu bari am na fi yoo xam ne du mujj fenn du mujj fenn nag buñ koy wax fii ci àddina rekk la yem waaye ñun ñépp xam nañu ne dee du jaas ak sabab bu mën a tax mu mën a ñëw ci nit ki it xam nañ ñun ñépp dinañ fi jóge te dana bis boo xam ne sunu boroom dana xotti sunuy wor ma ñun ñépp taxawal nu àtte ñun kon nañu bàyyi xel sunu bàmmeel yii ab salaire bu ñu lay fay ci ab liggéey am na yoo xam ne war nga koo mën a def ndax liggéey baa ko laaj conscience professionnelle am na waaye li jiitu conscience professionnelle daal mooy doomu aadama am na àq am na yelleef am na warma ju ñu war a jox doomu aadama nit ki bu la wanee yar wan la teggin wax ak yow ci yar ak teggin delloo ko ko nit ki bu la nuyoo fay ko ko ragalu la en tant personne parce que bu fekkoon ne da nga simmi sa tenue di nga yëg ni ci euh, xàmmewul ci yow jàngat joor waaye waxtu woo solee tenue bi rek mu am beneen bët bu mu la xool soo ko arrêté ak lu mu yàkkamti yàkkamti mu taxaw wax ak yow su juumee nangu ne juum na ne la dimbali ma nit ñi bu baat yi ñuy jëfandikoo seen diggante ak policiers yi sax war naa tax policiers yi ñu bari ak gendarme yi xoolaat seen seen digganteeg nit ñi dawal ci yërmande waaye sëñ bi dimbali ma sëñ bi jàppale ma man kay nangu naa ne maa juum nangam ak nangam kon nag nañuy wormaal nit ñi te itam euh, fii ñuy garde à nit ñi ñu di tuur ndox di fa def lu ne ci deux mille vingt et nit ki ñu war ko mën a garde à vue sax bu waxtu julli jotee mu julli te mu wóor la ne boo ko séddee cër. ba mu mën a jàpp julli da ci am bu yool donte nit ku juum la ndax nag du ñuy dem kaso ñëpp a bon du ñuy dem kaso ñëpp a def ñi ñuy garde à vue dañuy am seen présomption d'innocence ba keroog ñu leen di àtte condamné leen léeg sax ñu condamné nit par erreur kon nag bari na ci yoo xam ne euh, war nañ gën a xoolaat doxalin boobu <coughs> te gën a góorgóorlu gën a am yërmande. gën a fonk doomu aadama doomu aadama lu mat a fonk la yàllaa ko jiital ci mbindeef yépp yonent yépp ci lañu feeñ wàlliw yépp ci lañu feeñ te doomu aadama jàmbaar la suuf si gis ngeen ko liggéey nañ ci lu ne noot nañu ko te loolu lépp xereñteef sunu boroom ak turam yu sell yi moo moo tasaaroo ci doomu aadama yi ba loolu lépp mën a nekk kon euh, nañ ci gën a góor góorlu rek gën di waxtaan gën di soññante di gën a góorgóorlu ci nu ñu rafetalee nekkin bi ci suñu réew man nag li may wax mooy réew mi daal amul organisation amul ingénierie sociale réew mi amul benn organisation dara doxul na mu war a doxee te loolu li fekk mi ngi am ñun ñu di ko nangu day mujj kenn ku ne jàpp ne la nga bëgg rek ay dëgg la nga bëgg rek mooy yoon te loolu anarchie rek lay jur nit ñi nga xam ne nag ñoo jot a tukki dem nañu ci yenn réew yi xam nañu ni am na organisation boo xam ne bu ñu ñibbisee Sénégal dañuy am jafe-jafe dund ak ñi fi nekk moo xam homme de toute yi la moo xam civil yi la ci wàllu bruit ci wàllu ci wàllu dawal oto ci circulation bi ci wàllu waxante yooyu yëpp dañ cee am ak ak yelleef yu ñu leen jox ci réew ya ñu nekkoon ba buñ ñibbisee rek dañuy jàpp ne loolu ñëpp a ko war a am.